mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diwaan benn waxtu jot na ca Medina Cheikh ca Ndar bisimila ci xibaar yi Euh, doore xibaar yi ne wàllu Covid bi record beneen daal nañ koy rek am bésug tey jile ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas yi ñu daal di nag nemmeeku diggante démb ak tey ñiy faatu itam lim gi daal di nay yokk bu baax ndax fukk ak ñett lañu ñu daal di nag wàññi dinañ ci daal di dikk ci euh, situation bés bi ànd ci ak euh, directeur bu prévention ca ministère bi ñu dénk wàllu nag santé dinañu desandi itam ci wàllu crise bi ak naka lañ ko daal yore gox yi di artu askan wi bu ko defee ñu daal di jël seeni matuwaay préfet bu Ziguinchor li ni mel daal di yëkkati ay kàddu jéeme ko nag ci askanam ah, sàmmonteeg ah, matuwaay li ni mel nekk jafe-jafe ah, foofee ca université Gaston Berger ñii di étudiants yi sax daanaka ngir ñu daal di koy def lu jafe la ba tax nag autorité ya ñoom nit ñu ngi ciy wëyal aju nag ci wàllu nag sensibilisation bi dinañu desandi ak matuwaay yi ñu ca daal di jël tey jii foofee ca Touba seen marché lu àjjuma ba ci gendarmerie ba dafa daal di nag wàcc lépp li nga xam ne nag xeetu installation la mu jàll ko mu daal di ko fay nag jëlee coow li ne kur ca barab boobu eh, dinañ ci daal di jukki itam ci jotaayu xibaar yi eh, fii ci Liberté marché hebdomadaire bi itam activités yi noonu lañ ko eh, daal di nagamale lañ ko daal di nag layale mooy rek matuwaay yi ñu daal di nag jël ngir bañ a rek lawal feebar bi couvre-feu bi nga xam ne ànd nag yenn ci ay xeetu nag tere ci wàllu marché yeeg autorités yi eh, mel nañ ni dañ ci daal di nag eh, lajj nekk na itam lu wàññi liberté nit ñi ak yeneen eh, ki nga xam ne mooy expert nekk ci wàllu coordination humanitaire di Ada Pouy def na ceeb njàngat dinañ ci daal di nag teewlu dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata nag ñuy dikk ci wàllu tàggat yaram dalal ganu bés bi revue de presse beeg Adja Ndeye Marème Ndiaye Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce Guinness kiis lay doon. Adama Ndione. Euh, ci kàddu gi ñu dooree ko nag ak wàllu Covid 19 bi feebaru mbas mi euh, Sénégal nag daanaka samedi tey jii am na lim bu mu musul am muy ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett euh, ci ay cas yu ñuy nemmeeku diggante démb ak tey yokkute googu nag jëm na sax ba ñi nga xam ne ñoo daal di ñàkk seen bakkan ndax fukk ak ñetti ci ay nit daal nañ koy rek wàññi kon nag pression bi mu ngi gën rek di yokku ci service de santé yi nga xam ne nag jamono ji ñu ngi ak fanweer ak ñaari cas yi nekk population euh, directeur bu prévention ca ministère santé moo ko xam xamle docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ci situation bés bi ñu déglu ko ci micro def FM ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi test yi ñu def ñetti téeméer ak ñaar ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñaar fukki cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore daw mu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy maanaam importé waaye am nañ ci ñaar téeméer ak juróom-ñett ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fu ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee. Kaolack am na ci fukk ak juróom-ñett Touba am ci fukk ak juróom fukk ak ñett ci Dakar Plateau juróom-ñeent ci Mariste ak Ouakam juróom-ñett ci Yoff juróom-benn ci Almadi Mbour ak Parcelles Assainies juróom ci Médina Rufisque Saint-Louis Thiès ak Tivaouane. ñeent ci Fatick Guédiawaye Liberté 6 Mermoz ak Ouest ñett ci Amitié de Gibraltar Koki ñaari Tali Nord Foire Pikine ak sacré ñaar ci Cité Soprim Dieuppeul Diourbel Fann Résidence Guinguinéo HLM HLM Grand Yoff Liberté 3 Patte Point E Sud Foire ak Ziguinchor benn ci Amitié 3 Bambey Cité Apix cité CPI cité Kër Gorgui Derklé Diakhao Diamniadio Grand Dakar Hann Bel-Air HLM Grand Médine Joal Kaffrine Kër Massar Kédougou Khombol Liberté 1 Liberté 4 Liberté 5 Linguère Louga Mamel Mbacké Mbao Mékhé Sakal Sicap Karab Tamba ak Cadiaye téeméer ak fukk ak ñaari malade ci ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fanweer ak ñaari malade ñoo nekk réanimation fukk ak ñett ñoo génn àdduna ba su démb ajjuma juróom-ñetti fan ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi na ñaar fukki junni ak benn ci cas positif ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak téeméer ak ñaar fukki ak juróom-ñett wér nañ si ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent seen bakkan des ñaari junni téeméer ak fukk ak ñaar ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. Euh, ñu daal di nag desandi ci wàllu nag mbas mi ak yorin bi euh, crise sanitaire boobu ca Ziguinchor autorité yi nag gis nañ ne situation boobule. ñu ngi koy maîtriser waaye préfet bi mu ngi cay interpellé nag askan wa ñu jàppale nag buñ ci bàyyiwul xel jël seen matuwaay Sigicoor euh, mën na nag duggaat ci guut ak wàllante bu tar bi nga xam ne amoon na ko euh, Pape El Hadji Dramé préfet bu Ziguinchor ñu déglu ko ki ñas li lu fi nekkoon ci ci farlu rek ci farlu parce que àdduna aussi euh, ci ci jàmm ngay ngay waajalee safaan bi te ci loolu gis nañ ne. am na am na jàngat bu ñu bu ñu bu ñu def ci li nga xam ne mooy gestion bu njëkk bi wala comme ni koy wax faral di waxee du moins ñi nga xam ne c'est des initiés à la matière mooy la première vague mais lu ci mën a am daal euh, mooy ñu xam ne déjà am na lu ñu amoon ci dund euh, te it également à partir de la aussi am na lu ñu war euh, mooy ñu jàngate ci xool nu ñuy gën a defaraate suñu toogaay ba ñaareelu xaaj bi ñu sumb mu doon loo xam du jeexital ci suñu dundum ndax gis nañu lu xew Dakar ak Thiès. te bëgguñu ñu dund ko euh, comme que ñu dund ko nag il faut ñu defarluwaat bu ko defee jéem a euh, teg ay jéego yu dëgër euh, jéem a ànd ak kilifa ci li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg lëkkaloo ci ak moom jéem a ay pexe yoo xam ne aussi dana tax lépp loo xam motukaal ñu ñu mën ñu mën ko jël ba nga xam ne fi situation mu toll nii tey ñu koy rafetlu lool lool lool lool mu doon lu ñu maîtriser mu doon loo xam ne aussi du ñu du ñu du ñu ëpp loxo ndax loolu tant que mi ngi am ça veut dire que Ziguinchor dana wane xar-xaram bu rafet. et puis également dalal xelu kilifa yi ñu xam ne aussi di fi amoon am na naam waaye nag doo fi du fi amat je pense que loolu mooy li gën am solo te je sais ña nekkoon ci bi yëpp muy góor mag euh, xale xale euh, ñii nekk délégué de quartier ñii nekk ay euh, responsable de mouvement associatif ñii nekk également yëngu ci wàllu transport hmm, ñii aussi également yëngu ci wàllu karange en tout cas daal ak aussi le maires ñoom ñëpp ànd nañ ci loolu daal te xam nañu ne bu soobee yàlla daal wala am nañu ci yaakaar que ne situation bi incha allah dana nekk sous contrôle et puis lépp aussi également euh, sukkandiku ci li nga xam ne aussi mooy arrêté bi ma wax sànq ci nasaraan arrêté buy féddale wala dëggal li nga xam ne mooy mesure yi euh, te arrêté boo xam ne aussi dañ ci war a sukkandiku comme ça masque bi ñu mën di ko sol euh, mu doon suñu njëriñ ndax bu ñu ko defee yàlla mën la def ñu ñu mucc te lépp loo xam ni dañ fay jaay jaay di jëndante lépp loo xam ne fépp loo xam ne aussi administration la. Euh, ak it également sur la voie nga nekk ci mbedd bi aussi di dox yooyu yëpp ak aussi également nga dugg ci oto en tout cas daal mooy de transport bu mu nekk loolu daal mooy euh, solo si Euh, fexe daal di sàmmonteeg matuwaay yi tax ñu mucc ci feebar ba ci université Gaston Berger bu Ndar foofu gis nañ ne eh, jëfe gi des na donte jël nañu matuwaay ñoom autorité académique yi eh, waaye étudiants yi daanaka jafe-jafe la ñuy daal di nag am ngir daal di nag euh, def lañ leen rek euh, sant di mesures yi ñu bari nag jàpp di ci joxar bi baaraam yenn ci ay facteurs yi nga xam ne moo ko daal di waral Babacar Ndiong nekk secrétaire général bu commission sociale étudiants yi ci déglu ay leeralam ak Diané Marème Ndiaye. il faut ñu nangu d'abord ne autorités yi jéem nañ ci jéem nañ ci ndax am nañ yenn matuwaay yoo xam ne jar nañ ko teg ci bërëb yi ñuy dajaloo ngir dimbali étudiants yi ngir ñu ñu ñu respecté yenn mesures yi waaye boo xoolee eh, fi ñu ko def tamit du fenn fu dul université muy bërëb boo xam ne nit ñi dañ fi bëri te ëpp fi ci ñu fi war a doon. donc moo waral nag de temps en temps du ñàkk yenn mesures yi nit ñi bañ ko mën a respecter strictement même bu dee ñu ngi sentir que ni effort mu ngi am ci étudiant bu nekk ngir xëy ji loolu nga xam ne mooy jumtuwaay yi nga xam moom lañ leen tegal ngeen ñu mën a respecter mesures barrières ngir xeex mbas mi. léegi ndax yéen fu mu nekk nii yaa ngeen di jël seen matuwaay ngir fexe rek ba ndongo yi mën a respecter mesures barrières yooyu. waaw ñun de saa su ne ñu ngi ci ndax boo xoolee commission sociale moom bi mbas mi tàmbalee ba léegi. li dem ci sensibilisation ak xool li ñuy dimbalee nguur gi ngir ñu euh, jóg ci feebar bi ci lu dëkk donc moo waral muy support de communication yi ñuy def muy vidéo de sensibilisation yi muy activité yi waroon tëye sax des fois sussoir ko parce que benn notu recteur day génn wala benn notu directeur du cours day wane à combien commission sociale mu ngi mu ngi mu ngi jéem a fexe di fàttali étudiants yi di mbas bi mu ngi fi ba léegi dañoo war a jël suñu disposition. ñu daal di nag euh, desandi ba tey ci wàllu euh, wowule ak yorinu Covid 19 bi euh, ci wàllu nag l'école yi lañ ca daal di nag gis mooy établissement scolaire yi daal di nag ñaalu jaare ko nag ci syndicat jàngalekat yi di G20 ne ñu looloo waral ñuy daal di sàkku ci ministre éducation mu daal di fexe bàyyi xel ak nag càmbar bu baax a baax application bi ñuy daal di def ci protocole nag sanitaire bi G20 ñu daal. daal bañuñu ci sax ba jàngalekat yi daal di sumb ab grève Mamadou Tamba coordonnateur bu G20 ñu déglu ko ba tey ak Adja Ndeye Marème Ndiaye. G20 syndicat ak jàngalekat yi moo dellu si waat encore di fàttali préavis de grève bu mu déposé woon 17 décembre bi passé euh, le 17 janvier bii di ñëw lay jeex fàttali ñëpp nii bu jeexee g am na sañ-sañ jëfee li nga xamante ne moom la yoon nay pour euh, gouvernement ngir gouvernement bi am indi ay saafara si li nga xamante ni moom mooy euh, jafe-jafe yu mu nemmeeku te mu lim ko si euh, plateforme revendication bi mu euh, boole si préavis de grève bi. G20 mu ngi fàttali nii bu fekkente ne si li ñu gis tey feebar bi di law di gën a law te di gën a garaaw kaay di gën a bëre dee di gën a bëre lépp gën a garaaw bu fekkente ne ministre bi nga xamante ne wane na au moins ni ay limitam si wàllu gestion crise bi si école yi bu fekkee ne boobu ministre. saafara li nga xamante ni jàngalekat yi ñu koy laaj si li nga xamante moom lañ naan moom lañ tuddee protocole sanitaire ak protocole euh, pédagogique bi GV dina woote grève pour aar jàngalekat yi ak élèves yi aar aussi également famille maanaam euh, euh, parents d'élèves yi ak famille parce que nu yendu école si kër yi lay fanaan lu fanaan kër yi si école yi la lay yendu donc ñaar yooyu ñoo bokk ba tax na bu fekkente ne école toll na boobu tolluwaay bi nga xamante ne tey boo jëlee téeméer si euh, population sénégalaise bi lu jege fanweer ay élèves nañ donc euh, caaxaane loolu nga xamante ne mooy gestion Covid 19 bi si biir école yi loolu fooyee réew mi la loolu sabotage la niiru euh, ñu daal di nag dem nañ leen ko waxee marché luuma bu tuubaatul foofee ñi di woy takk der yi ñoo daal di nag tasaare boobu lee ndaje Babacar Ndaw lañ ci daal di nag jokkal Babacar ñu ngi leen Euh, waaw mu mel nii muy lu bett ñi nga xam ne mooy jaaykat yi ba tax ñu daal di koy naqarlu. Oh, waaw Adama Ndione ni nga ko waxee noonu la gendarmerie euh, tey jii ci suba rawatina ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy waa Xombol ak Thiénaba ñoo def opération combinée ñëw. Euh, fekk ñi nga xam ne ñoom ñoo doon la jaay foofu si euh, luuma hebdomadaire bu Touba Toul nga xam ne jàpp na ne moom mooy gi gën a rëy si tund bi fii ne du région Thiès rek lay dajale mais région Diourbel ba sax am na ñuy bàyyi ko côté Louga di fi ñëw surtout si wàllu njaay jur mi euh, luuma bu mag a mag la ñoom nag tey jii ñenn ñi am na mbetteel ginnaaw bi gendarmerie ñëwee. mayu ñu leen sax daal wax ak ñoom dañu ñëw rek ne ñëpp laal yi parce que arrêté bi dafa tere euh, luuma yi léegi ñu koy amal depuis arrêté bi ministre de l'intérieur jël donte sax su préfet bu Thiénaba bi nga xam ne euh, Touba Toul ci la bokk nee na moom démb joxe na ay commune locales yi foofu euh, pour que kenn bañ a lal tey jii waaye jotuñu woon jël matuwaay ne ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñoom jaaykat yee leen fa njëkk lu ma xam nga nit ñi dañuy teel a ñëw euh, bi bi ñëwee nag mberteel amoon na parce que mayuñu leen sax ñu laal li ba tax na nag ñenn ñi jàpp na ne dañ leen toroxal bundu xatal leen ba tax na sax askan yi euh, ñenn si ndaw po dëkk tubaatul ñoom ñoo mujj sax daal jël xeer aussi du coup sanante gooy takk der yi waaye fekk na booba ñu si bara nag ku si yaa nga jéem a daal xool nooyu mën a jëlee sa bagage rawale ko ay rawale sa bakkan finalement luuma moom mujj nañ ko tas loolu nag di wane ne euh, lu may également si ndaje yi dañ koy tere loolu bokk na ci leneen nag li nga xamante ne euh, moom moo jaaxal nit ñi euh, jaaykat yi ak ñu bare même kilifa dëkk bi naqarlu nañ ko ne ne mënoon nañu waxtaan ak ñoom gën leen sensibiliser mais surtout ñu xool ni ñuy tàkkee masque jël ay matuwaay jàpp na ne marché yi ñu ngi ñu ngi continuer di amal seen ay activité ci ci marché yi misaal bi fii ci Thiès marché central tànkeeloo bi ak raatulaaj juróom bi takk ñu masque naam ndax police ak gendarmerie li ñuy fanaan di def couvre-feu moo tax seen lim euh, doyul bëccëg bi ba ñu war a mën a def seen liggéey ni ko war a defee ba beneen bi aussi xew-xew yi ay takk yeeg ngénte yi mariage yi dafa mel ne nit ñi dañ ko déggoo ne nañu profité si week-end yi nit ñi ñu ngi koy def euh, ba pare dara fekku leen si donc ñu bare nag jaaxle si ni ñu appliqué li nga xamante ne euh, moom mooy euh, état d'urgence bi ak couvre-feu bi euh, fii si biir diwaanu sa donte xayma yi mi ngi koy wéyal di ko finde ba léegi situation bi moom mi mi ngi yokk misaal bi tey jii gis ngeen ne même que ay amaat bare na loolu si yow niveau. Euh, Sénégal mais région Thiès rek tey jii gis ngeen ni ko euh, docteur euh, directeur de la prévention rappelé sànq tey rek région Thiès am nañ fukki cas ak juróom si cas communautaire Mbour am na si juróom benn Thiès am na si juróomi ka Joal Xombol Mexe ak Caajaay ku si ne am nga benn cas donc nemmeeku na ne même fi di centre de traitement bu l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène sax malade yi ñu ngi leen di tàmbali di indiwaat ni ki gouverneur waxee woon bërki dem nit ñi nag ñu ngi ñaax ñi nga xam ne ñooy takk der yi ñu dawal compréhension gën a waxtaan ak askan parce que bii si guddee également si côté Thiès Nord rawatina taaxi kaw xale yi génnaatoon nañ taal fa ay pënë mel nag ba léegi nit ñi moom ñu ngi xool ne ragal nañu daal bu ñu gënul waxtaan ak askan amaana na euh, li nga xam ne moom la nit ñu bëgg jàmm boobu euh, daal boo moytul dina ñàkk si fan yu njëkk yi nga xam ne couvre-feu ñu bare métti na si ñoom ñenn si commerçant yi sax te jii ci marché central bu Thiès ñu ngi ragal ne dégg nañu ay xibaar ne bu ñu moytul daal leen tëjloo fan yi lu jiitu waxtu couvre-feu bi loolu nag dogal bi wàccagul euh, Adama Ndione jaajëfal ko Babacar Ndaw beneen marché hebdomadaire fii ci Liberté 6 dañ ko daal di nag euh, tëj ci tey jile amul euh, ba amul benn activité bi ñuy def ca barab ba dogal la boo xam ne autorités yi ñoo ko daal di nag euh, jël donte neexul sax ñi di jaaykat yi nga xam ne ñu ci bëri bàyyeekoon nañ ci ay barab ngir daal di ñëw ñoom itam fësal nañu seen i maire ba tax ñuy sàkku nag wàllu commerce bi ñu daal leen bàyyi ñu daal di koy nag amal Josette Kali. xaluma yi dañoo mer ba futtu noonee sax ñu joxante daje ca rond point liberté 6 ak li ko wër ngir ñaxtu ni leen autorité yi dul bàyyee xel loolee tax ñuy wax déedéet ci décision yi nga xamante ni dafay ànd ak parparloo yoo xamante ni ñoom ñoo si sooxele saa su ne Fatou présidente bu jigéen yu nekkee ci marché hebdomadaire yi. virus bi bu ñëwee rek marché luuma yi la ñuy tas duñ tas yeneen marché yi te man yaakaaruma ne marché luuma rek la virus bi di ñëw bàyyi asalem bàyyi sandaga bàyyi marché caaroy virus bi fépp lay wër kon nag waruñoo tas marché hebdomadaire yi ba pare di bàyyi ñi ci des virus bi bi mu njëkkee ñëw ñoo arrêté ñu toog ci suñu kër yi Sandaga di liggéey Castor di liggéey te ñooñu ñooñu ëpp loolu buñ ko xamee ne arrêté nga ko ñooñu da nga koo rey mooy ni amul dara ñun loolu la ñuy tund nga jël nag ñi nga xam ne ñoo am moyen ñu liggéey ñu amul moyen nga ne leen du ngeen liggéey deux pas deux mesures boobu moom laa àndul ñun ànduñu ci loolu ni réew mi méttee si jamono yi loolee tax ñoom benn mbir dong la ñuy sàkku moo di liggéey bu ñu fii ay bachelier ñoo fi nekk ay maîtrisards ñoo fi nekk ay veuve ñoo fi nekk dégg nañ nag ne décret bi 12 jours la ñu lay ñaan du jours yooyu bu jeexee bu ko renouveler ndax boo ko renouveler catastrophe ngay indi kenn du lekk kenn du naan 3 mois yi nga ci tëjoon bi ngay joxe say ndimbal ñun bokkuñu ci te ba tey laajuñu la ko ndax ñun ay gor lañ liggéey la ñu gëm ba nga ñoo bàyyee dañoo continuer suñu liggéey kenn dégguñu. loolee tax ñuy lancer appel njiitum réew mi ngir ñu mën a diisoo ba mën a moytu ñetti weer yi nga xamante ni toogoon nañ ko fi ci vague bu coronavirus coronavirus bu njëkk bi dañ koy ñaan ay njabootam lañ moom njabootu picc la yor njabootu picc mooy koo xam ne boo xëyee naaw boo gisee ceeb caf ko boo gisee dugub caf ko boo xëyee boo di jotee nga dellu ko am njabootu picc da ngay xam ne njabootu picc nga yor nañu yërëm ñun daal loolu rek lañ koy ñaan président de la république Macky Sall yow la ñuy ñaan ñu ngi la koy ñaan ñu dajaloo ca buntu makkaanu Walfadjri yi lay jaaykat ci marché luuma yi ñooy sàkku ñu bàyyi Aline Sakho di kenn si ñoom te force de l'ordre yi teg ko loxo. am na nag ku ñu jàpp ci ñun te kooku deful dara lu dul nañ taxaw wax suñu doléance looloo tax ñu jàpp ko tojul kaar lakkul pono deful dara. libéré libéré libéré ñu ah, daal di desandi ak état d'urgence bi couvre-feu mu daal di nag àndal matuwaay ñu ci jël ngir daal di aay eh, ci niveau marché yi ak dem beeg eh, dikk bi lépp loo xam ne nag xeetu activité la eh, mesures yooyu ñu autorités yi daal nag jël ngir dakkal law gi feebar gi di law nekk na mbir moo xam ne mën na rek yemale ak nag yàqal ñu bari ña ciy yëngu ñu jàpp ne sax dogal yooyu ña ci àndul dafa daal di nag bare aada puy nekk expert ci wàllu coordination humaine moo ko daal di def jàngat bi ni mel muy sàkku nag ci njiit yi ñu daal di fexe eh, di contrôler eh, ñiy faral nag di faatu ci feebar bi ak wala ñi nga xam ne feebar bi daf leen di alawtiku loolu moo gën rek nekk farata ci jàngatam ñu déglu ko moom aada puy ci jokkoom ak eh, ajande Maram Ndiaye. quelque quatre-vingt-dix pour cent yi nga xam ne mooy économie Sénégal ci secteur informel de dépense nga xam ne ñi yëngu euh, koy tuddee. maanaam dund que mu nekk mbirum jaay que mu nekk mbirum euh, jëflante yëpp nga xool affaire transport xoolal rek li nga xam ne impact bi am ci mesure bi ñu wax état d'urgence li ma ci xaw a jaaxal mooy ñun dañuy toppandoo maanaam li nga xam ne moo dal France problème ni mu ampleur bi mu am France nekkul ampleur bi nga xam ne moom la am fii donc fii lañ toogoon di wax ne ñooy ñooy ñooy champion ñoo champion parce que ñoo ñoo ñaareel dëkk bu nga xam ne vraiment am na performance ci affaire bi loolu dëgg la mais loolu wax ko yomb na mais jëf ko moo jafe parce que il faut nga xoolaat bu baax toppatoo roy sooy roy da ngay roy ci li nga xam ne dafa euh, dëppoo ak yow sa sa affaire aada ak sa cosaan cosaan maanaam France ñoom ni ñu ko defee ak ñun ni ñu ko defee du warul nekk benn Sénégal boo fi demee da ngay def état d'urgence mooy di nga rey ñu bëri da nga jéem a sauver àdduna ay nit mais ci biir loolu yaa ngi reyale ay ñu bëri bëri parce que ñu bëri tey seen dund ci guddi gi la dépendre mun nañu wane trente euh, vingt euh, vingt cinq à trente cinq pour cent euh, yi ñuy wax économie bi lu bëri ci guddi lay dox. que mu nekk affaire restaurant que mu nekk affaire jënd ak jaay maanaam affaire ñiy jaay dàll ci mbedd mi yow gis ko en milieu urbain su ñëwee Dakar loolu moo ci gën am solo. économie boobu moom mooy suuxal dëkk. Sud FM. Euh, ñaari nit ñi daal di faatu juróom-ñaar amee gaañu gaañu juróom ya sax ne ñu état bu garaaw la ñu nekk mooy bilangu accident bi am euh, foofa ca kel ab camion boo xam ne nag euh, dawalkat ba dafa daal di rek saaraan ci groupe ay élèves yi nekk ca lycée ba tax mu daal di ciy faat ñaari nit ñooñee ci leeral ñu fekki Babacar Sow. yoon wi faatati na ay doomu aadama ñaari nit yoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan fi saa si ak juróom-ñaar yoo xam ni mën nañ ci lëm juróom yi loolu la ñuy jàpp ci accident bu metti bi nga xamee ni am na démb ci guddi ci booru huit heures diggante kel ak ndànd ab camion bi nga xamee ni dafa yëpp jën jóge woon ndar moo daal fale falaxe benn groupe boo xam ni bii ay élèves lañu yu nekk ci lycée bu kel daal di cay faat ñaar ci saasa balaa muy mbëkk benn garab ñu mën cee lim benn jigéen bu nga xamee ni amoon na lu toll ci ñaar fukki at ak ñaar dëkk ci bët forage ak keneen koo xam ni kii moom itam am na ñaar fukki at ñaar mujj ñàkk seeni bakkan suñ sukkandikoo ci village waa yi xamee ni fekk nañu accident bi nee nañu daal def doon daw bu baax a baax balaa muy wàcc tali bi mbëkk gurubu xale yu jigéen yooyee di xale yu jigéen yoo xam ne yi dañu wàccoon jóge ca lycée ba di ñibbi seen kër dawalkat bi moom itam am na ay gaañu gaañu yu metti ñu jëkk ko yóbbu ci lopitaalu ngaay mexe balaa ñu ko yóbbu fële nga xam ne moo di ca ndakaaru yeneen juróomi jigéen yi nga xam ne itam am nañu ay gaañu gaañu ci accident bi ñu ngi ñu yóbbu ci lopitaal bu ngaay mexe Tivaouane Babacar Sow doon ca jokk ak yéen fii ci ngaay mexe pour Sud FM euh, Tamba moom gannaaw rek lu yees ayu bés accident bi nga xam ne amoon na ba kenn ci seeni naataango euh, daal di nag euh, génn àdduna section Tambacounda bu pharmacien yi ñu ngi woon ak pouvoir public yi ñu daal di nag fexe xoolaat anam bi ñuy daal di saytoo lu aju ci wàllu sécurité bi rawatina ci yoon yi di national 1 ba ne ñu gis ne foofu daal accident ya fay am dafa daal di bari lool la koy waral du dara lu dul euh, ñàkk yar bu dawalkat yi waaye itam ñàkk contrôle ba fa daal di am docteur Samba Salif Diallo euh, di wax ne daal bu ñu fa doon def ay patrouille dina mën a tax yi fii daal di dettu gannaaw ñu déglu ko Boubacar ba nan lañ koy changé mooy motaar yi ñu gën leen dooleel boo jëlee par exemple cinquante kilomètres yu nekk motaar yi di def aller retour ci kaw tali bi bu boobaa dinaa xam ne que dans cinq minutes wala dans dix minutes mën naa tase ak motaar donc dinaa def ndànk. mais su ma xamee ni man mën naa daw cinquante kilomètres wala cent kilomètres amul benn gendarme bu nekk sama kii affaire yooyu et que euh, su ma jubee par exemple fi mu fi ma fi ma xam ne wóor na ma ni mu ngi taxaw foofu damay taxaw damay arrêté damay damay damay def nànk daw cinquante kilomètres à l'heure ba dépassé ko après continuer def samay toj toj toj toj yi am ci kaw tali bi dafa jéggi dayoo man yaakaar naa noonu rek lañ ko mën a defee tey bu ñu defee entre euh, Tamba ak Koussanar benn brigade benn équipe buy def aller retour de motard entre Koussanar ak Koupentoum aussi ñu def la même chose benn équipe buy def aller retour entre euh, Koupentoum ak Kaffrine aussi ñu def même chose ñu continuer noonu brigade euh, motard yooyu nañ leen dooleel ñu nekk fréquemment très présent sur la route man yaakaar naa noonu rek la mën a demee et eh, bon nit ñi aussi nañu yar seen bopp nañu def ndànk parce que boo nekkee fii di doubler ay institut yor ay camion ñëw dal ci kenn koo xam ne moom peut-être moom dafa doon dawal respecter li muy dawal mais yow nga jóge le doubler en troisième position ci benn virage ñëw dal ci kawam yàq ko moom yàq njabootam ak yooyu yëpp loolu vraiment dafa dafa dafa doy waar tiitlu na trop trop trop trop Boubacar Ah, ci la ñuy daal di nag euh, dikk ci fexe ba daal di jëlee xoqatal yi faral nag euh, di am ci yoon yi ba tey ci wàllu frontières yi eh, fexe itam ba yoon yi ñuy daal di nag euh, jaar ngir ku ne mën a dugg fu la neex ci wàllu dem ak dikk jàppandal loolu moo nekkoon ponk yi nga xam ne ñu ngi ko doon waxtaan ci Ziguinchor foofu ñi yooyu takk der yi nga xam ne fare nañu ci ñetti réew mooy Guinée Bissau Gambie ak Sénégal daal nañ fay rek daje ñu jàpp ne li ni man dina mën a tax ñu daal di amal la ñuy wax CEDEAO CEDEAO des peuples ñu dem ba Ziguinchor yokkoo jékki ñas de ñii di police des frontières douane yi nekk ci réew réewum Gambie Guinée Bissau ba ci Sénégal ànd ceek ñi nga xamante ni ñoom ñooy transporteurs yi daje nañu fii ci diwaanu Ziguinchor pour xàll nag yoon jàmm euh, ci lépp lu jëm ci wàllu circulation ci frontières yi loolu nag pour acteurs yi ñu xool nan la ñuy uniformiser lal ay pexe pour lépp mën a nekk benn ci ñetti réew mi ci lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi nit ñi ak lépp lu jëm ci wàllu bagage ci li nga xamante ni moom la ñuy faral di jànkonteel mu di ay jafe-jafe ci dem dem ak dikk bi ci wàllu frontière yi frontière bi ñu jàpp ni sax dafa war a nekk trait d'union euh, ci réew yëpp naka la ko kii di Souleymane Baro chargé des programmes ci Endakasi daal di xamle. mais également dañ ne transporteurs yi ak commerçants il faut que ñu former leen pour ñu xam comme ça bu fekkee ne da ngay dem ci beneen dëkk bi déjà nga xam ni boo demee ci frontière bi lii ak lii moo la ciy xaar. donc loolu naka ngay mën a def pour nga mën kaa pour ak Sénégal ñu mun leen mettre ensemble pour ñoom ñu mun a waxtaan pour ñu mun a harmoniser seen procédure de contrôle seen procédure d'enregistrement ak seen procédure douanière ñoom ñetti kuréel yooyu bu ñu ko amee rek je pense que usagers yi ñoo ciy mun a bénéficier CEDEAO des peuples li ni mel le mouvement bi di vision citoyenne bëgg mu am naka la ko président am daal di xamle jàpp ni euh, mu ngi ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi ñenn ñi di jànkonteel suñuy tukki di dem ci yeneen réew yi Madia Diop Sané. Ah, parce que CEDEAO des peuples boo ko dëkkee mooy CEDEAO bi nga xamante ne ñëpp ñu nekk bépp nit bi nga xamante ne mu ngi dëkk ci CEDEAO war na mën di dem di voyager nu mu ko neexee di voyager nu mu ko neexee di traverser frontières yi te du yëg ni frontière lay traverser mais tey booy dugg Gambie da ngay xam ni Gambie ngay dugg booy dugg Guinée Bissau da ngay xam ni Guinée Bissau ngay dugg booy dugg ci Sénégal da ngay xam ni Sénégal ngay dugg ci alors que ñu ngi wax la CEDEAO ñëpp benn carte d'identité bi nga xamante ne moom mooy wone ñun ñëpp benn lañu mais boo xoolee sur le terrain wax dëgg yàlla li am euh, maanaam li am ak lu ñuy wax nekkul benn dafa dafa méngoowul benn yoon donc ñuy ñaan euh, voyageurs yi nga xamante ne ñoom ñooy dugg voyager dans la CEDEAO ñoom ak seeni i marchandises ñu bàyyi di leen bunu xatal parce laata nag ñuy taxawal ay pexe pour lépp mën a ànd nekk benn jafe-jafe yi nag mu ngi wéy ba léegi di am ci wàllu frontières yi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy tukki di joge ci benn réew dem ci beneen réew ak jafe-jafe yu ñuy faral di jànkonteel Ziguinchor Ignace Ndeye tàggat yaram ñu doore ko ligue africaine des champion eh, équipe bu Tëngëj FC mi daal di nag eh, qualifié ci première bu eh, muy bu njëkk ci wàllu phase poule bu ligue africaine champion boobule moom nag mu ngi bokk ci groupe D bi ci ñetti ngand yoo xam ne nag ci footballu afric kenn du leen naatable fare nag ci Afrique du Nord yu ci mel ni Espérance bu Tunis Zamalek bu Caire ak MC bu Alger loolu waral nag muy nekk poule boo xam ne jongante bi du yomb jàngatu kii di Salif Diallo nekk journaliste sportif ñu déglu ko ak euh, Adja Ndeye Mariam Ndiaye. Ah, dina metti torop dina metti parce que boo xoolee expérience bu moo gagné woon Ligue des deux mille dix huit ak deux mille dix neuf Zamalek fàtte naa ban année la ñu mais ñoom ñëpp yëpp gagné nañ Ligue des champions donc Teungueth FC moom. dafay jouer contre équipe yoo xam ne équipe yu gën a baax la ci Afrique am nañu moyen am nañu ay joueur am nañu lépp mais football mooy sport boo xam ne euh, du ko ku ku euh, ku mat rek mooy gagné la preuve su loolu la soo peesee da nga jëf see nga da nga jëf see du mos a qualifié devant Raja donc euh, tubaab lu muy wax te nga jëf see amul lu muy lu muy perte ci affaire bi lépp lay gagné donc ça veut mu ñëfee mu xam ne football moom mooy sport boo xam ne nit mun na la mën nga gagné ko. Sénégal gagné na fi France te nga jëf see éliminé na fi Raja donc mun na mun na kii six matchs la donc trois matchs yoo xam ne fii la koy joué donc mu góorgóorlu mun a gagné trois matchs yi pour mun a dem si kanam. ñu daal di desandi ba tey ci programme bi nga xam ne Ligue 1 euh, ci wàllu samedi tey jile euh, ci match yi ñuy war rek amal bu 16h jotee ñaari tali di dalal douane buur Petite code di dalal euh, jàmbaar bu dee Ligue 2 bi nag nii la tëddee ci samedi gi ISO mooy laale ak GFC EJ di dalal Sonacos Duc mooy dem nag ca Renaissance amitié mu daal di fay nag. mooy dem di laale ak Renaissance Amitié euh, foofa ca euh, Demba euh, Diop mu nekkoon xibaar yi ci wàllu tàggat yaram beneen pàcc bi dalal ganu xibaar yi. ganu bés bi bés bi kon muy doon rek kii di Ada Pouy moom mi nga xame ne nag euh, dafay daal di nag jàngat euh, lii aju ci euh, wàllu mesure yu ñu daal di nag teg ngir wàllu marché yeeg yi ni mel ñu daal di koy nag càmbar moom nag xam-xamam dafa màcc ci wàllu wile ñu teewlu waxtaanam ak Adja Ndeye Mariam ñu ngi ak Ada Pouye yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllu coordination humanitaire ci wàllu mbasub Covid 19 gi ak matuwaay yi nga xam ne moom la fi nguur gi jël ngir xeex ko ci ni mu waree nemmeeku nañ ci état d'urgence ak couvre-feu ak tamit yenn ci ay tere yu am ci wàllu dem ak dikk beeg ci biir marché yi ndax mesures yooyu nga xam ne tey jii jël nañu ko mën na tax ñu xeexee feebar bi ci ni mu waree. non ci sama jàngat parce que euh, biir naa fi benn euh, kayit bu leeral ñun soxlawuñ ko soxlawuñ ko parce que buñ xoolee xëyle ñu ne euh, quatre vingt dix pour cent yi nga xam ne mooy économie Sénégal ci secteur informel la dépendre nga xam ne ñi yëngu ci affaire euh, naka lañ koy tuddee maanaam dund que mu nekk mbirum jaay que mu nekk mbirum euh, jëflante yëpp nga xool affaire transport xoolal rek li nga xam ne impact bi am ci mesure bi ñuy wax état d'urgence li ma ci xaw a jaaxal mooy ñun dañuy toppandoo maanaam. li nga xam ne moo dal France problème ni mu empleur bi mu am France nekkul empleur bi nga xam ne moom la am fii donc fii lañ toogoon di wax ne ñooy ñooy champion ñooy champion parce que ñooy ñooy ñaareel dëkk bu nga xam ne vraiment am na performance ci affaire bi loolu dëgg la mais loolu wax ko yomb na mais jëf ko moo jafe parce que il faut nga xoolaat bu baax toppatoo roy sooy roy da ngay roy ci li nga xam ne dafa euh, dëppoo. ak yow sa sa affaire aada ak sa cosaan cosaan maanaam France ñoom ni ñu ko defee ak ñun ni ñu ko defee du warul nekk benn Sénégal boo fi demee da ngay def état d'urgence moo di ñu bëri da nga jéem a sauver àdduna ay nit mais ci biir loolu yaa ngi reyale ay ñu bëri bëri parce que ñu bëri tey seen dund ci guddi gi la dépendre mun nañu wane trente euh, vingt euh, vingt cinq à trente cinq pour cent di euh, ñuy wax économie bi lu bëri ci guddi lay dox. que nekk affaire restaurant que mu nekk affaire euh, jënd ak jaay maanaam affaire ñuy jaay daal ci mbedd mi yow gis nga ko en milieu urbain su Dakar ak Thiès loolu moo ci gën am solo et que moom boobu moom mooy suuxal dëkk mooy tax ñi euh, moytu yenn jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ jànkanteel mi gannaaw loolu yaakaar naa ne ku président bi am na pouvoir yëpp lu ci aju yow ñu ngi ni fonctionné euh, ci base cinquième république maanaam li France di doxale ci maanaam président bu am doole nekk na ci benn jamono bu nga xam ne Sénégal euh, benn président lañ am am ñu premier ministre maanaam lépp mbir yëpp ci dëkk bi mu ngi dépendre ci président de la république tey tey tey am na am na ndogal bu nga xam ne mun na ko may sa alaam muy def affaire état d'urgence mais taxawal ay kuréel yi nga xam ne dafay jàppale nit ñi. kon Ada Pouye bu ñu déggee bu baax say kàddu dafa mel ni kon mesure yooyu nga xam ne moom la njiitu réew mi jël dafa mel ni du mesure yi nga xam ne tey jii moom mooy tax ñu xeex feebar bi ci ni mu waree. parce que lenn dama xam ne il faut mu leer suñu wax stratégie de prévention et prise en charge dafa lu nga xam ne moo ci am solo nee nañu mag ñi la kii bi ni gën a euh, la euh, mbas di gën a sonal maanaam ñi nga xam ne am nañu euh, soixante ans jëm kaw. ñu ne am na ñu nga xam ne dañu am par exemple diabète diabète xam nañu à peu ci ban diir ak ban anam dañ ñoo ñoo am affaire u diabète am nañu centre euh, euh, maka euh, maka lañ ko tuddee centre bi nekk recommandé donc centre couleur yooyu yëpp taxaw nañu pour jéem xam exactement ñu nat ñi nga xam ñoo am affaire diabète Sénégal ñu ne léegi ñeneen ñi nga xam ne am nañu situation à risque mooy ñi nga xam ne dañuy am hypertension xam nañ ko ñan ñoo nekk ay problème euh, hypertension ci Sénégal di gën a am solo mooy lépp lu nga xam ne yaa ngi koy def ci mbirum xeex mi ci mbas mi il faut nga samp ko ci suñu aada ak suñu euh, maanaam euh, kattan ci biir gox yi nga xam ne ak goxaan yi nga xam ne nit ñi foofu lañ dëkk maanaam tey su fekkee da nga ne da nga xeex kii bi te yow amuloo ay centre de dépistage centre yi nga xam ne dina leen mën a permettre o au moins nga mun a xam kan moo am Covid am ma ko am amul parce tey booy xool nga seen ne fii tey tey tey tey tey li ñuy fay pour fay euh, pour test yi quarante mille ngay fay pour def tess quarante mille kan moo am quarante mille nga yaa ngi dem defi test su lu tax duñ def ay centre de dépistage volontaire et gratuit sur la Covid xaalis bi ñu jël mille milliards yeeg ak trois mille milliards yi nga ne dañ ko def suñ ko defoon def ko au niveau des quartiers nga xam ne centre bu nekk dinga am fu nga xam ne soo nekkee mag yow dinañ jéem a topp topp xool la seet su fekkee jéem a seet nag lañu aare yow ci ci feebar bi loolu nekk na lu nga xam ne lu am solo la maanaam nañ delloo cëru ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo xeex bi nga xam ne mooy ñëw euh, ci mbir mas mi yelloo ak euh, xeex bi nekk ci mbax si moom mooy ñu xam ñan ñoo ci gën a euh, ñan ñaan ñoo ci mën a del ay jafe-jafe ñooñu nga jéem a seet naka lañ di mu ne aare mais du rek taxaw ne yaa ngi jël mesure état d'urgence ba pare ministre bu nekk di nekk ni di wax yow ni nga ko bëgg defee nañu wax ne dëgg Sénégal métti na méttiwaay bu nga xam ne ndaw yi xamatu lu ñu def xamatuñ buñ fu ñu jëm suñ demee ba di def affaire mbëkk mi xam nga ne ñu ji da nga jaaxle. Ada euh, maa ngi lay sant di la gërëm may fàttali ne yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllu euh, coordination humanitaire. Adama Ndione. Euh, mbokk yi fi lay yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi jaajëfal Ndeye Mariam Diagne ci wàllu revue de presse bi euh, rédaction bi dina dellusiwaat euh, xibaaru tàkkusaan si juróomi waxtu ak juróom benn waxtu ñaari waxtu xibaar yi ci tënk jaajëfal Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm.